couverture sanitaire universelle ci lu jëm ci wàllum oxygène googee oxygène nga xamante ni xaw naa manqué fii bébét bi moo di ñu def lépp ba hôpital bo dem fekk ko fa te mu doy waaye loole lépp ngir ñu mën kaa motal laata seen dimbal di ñëw faw ñi jiite réew yi def ci seen loxo ñu teew lu docteur Diefra Binda di chargé du renforcement du service santé ca bureau pays bu OMS fii ci Sénégal. L'OMS comme chef de file appuie euh, le Sénégal et tous les pays. Euh, bu ñuy wax euh, euh, wàllum garab nag rawatina li nga xamante ni mooy oxygène da ngay soxla lii di OMS daal jàppale Sénégal ci loolu la nekk te ñëpp xam nañ pour nga atteindre li nga xamante ni mooy couverture sanitaire universelle ak sécurité sanitaire fa nga am ay garab yu doy gisoon nañ ni amoon nañ ci ay jafe-jafe wante bi Covid bi ñëwee ci la jafe-jafe yi gën a tar te ngir indi ay coppite ci ñàkkum oxygène dañoo soxla li nga xamante ni moom muy ndimbalu lii di OMS. te loolu banqaas bii di OMS xam na ko ba tax na mu ci indi ay coppite yu am solo su ko defee mu mun a yokk ndimbalam jëmale ko ci réew yi nga xamante ni daa nekk seen doole demewul noonu ñun suñu wàll fii ci Sénégal nag dañuy lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi. rawatina pharmacie euh, nationale euh, ak direction euh, d'infrastructure d'équipement et de maintenance dañuy liggéey tamit ak waa agence de la réglementation pharmaceutique waaw ak yeneen bànqaas yi mu nekk li nga xamante ni nag daa nekk taxawaay bu am solo la réew yi war a am su ko defee ñëpp mën a taxaw tem ngir fexe ba dooleel li nga xamante ni moom mooy wàllum oxygène. pour que vraiment nous puissions mettre à disposition de nos populations euh, l'oxygène.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 Bonjour, nous continuons de parler de l'oxygénothérapie. L'Organisation mondiale de la santé veut à travers cette réunion internationale aider les pays, notamment le Sénégal, à atteindre la couverture sanitaire universelle en termes d'oxygène. Pour combler le gap de l'oxygène dans les hôpitaux, il faut impérativement un meilleur financement, surtout celui domestique. Écoutons le docteur Diefra Binda, chargé du renforcement du service santé au niveau du bureau pays au Sénégal. L'OMS, comme euh, chef de file, appuie euh, le Sénégal et tous les autres pays euh, pour euh, euh, adresser les différents gaps. Et ici, nous parlons d'oxygène. Oxygène qui est un médicament, vous savez que pour atteindre la couverture sanitaire universelle et la, la sécurité sanitaire, Nous avons besoin de médicaments. Il y a eu des problèmes avant les défis, mais avec Covid, ça a exacerbé ces défis de manque d'oxygène. Mais pour avoir l'oxygène, évidemment, il faut avoir du financement. Et l'OMS est en train de monter des euh, stratégies, surtout la mobilisation des, des ressources supplémentaires, d'abord domestiques et ensuite de partenaires techniques et financiers pour appuyer afin que cet euh, accès euh, soit vraiment efficace et que les financements puissent être euh, L'OMS, normalement, par exemple, au niveau du Sénégal, nous appuyons d'une manière très organisée parce que nous travaillons premièrement nous travaillons avec euh, la CNPNA. CNPNA, c'est la pharmacie nationale euh, d'approvisionnement. Nous travaillons euh, aussi avec la direction euh, d'infrastructures, d'équipements et de maintenance parce que l'oxygène, c'est toute une logistique, il faut de la maintenance. Nous travaillons aussi avec l'ARP, l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, parce que c'est un médicament, il faut très bien réguler et nous travaillons avec la direction euh, générale d'établissement de soins parce que normalement l'oxygène est euh, demandé au niveau des hôpitaux. Et voilà pourquoi au niveau du Sénégal, nous, balayons euh, pratiquement tous ces aspects, que ce soit au niveau de l'approvisionnement, que ce soit au niveau de la logistique, que ce soit au niveau de la maintenance, que ce soit au niveau des prestataires. Euh, voilà un peu comment nous ferons euh, au niveau du Sénégal. dans d'autres pays, ça sera la même chose. Voilà pourquoi est organisée cette euh, importante euh, réunion pour que les pays puissent élaborer un plan d'action et que ce plan d'action puisse être suivi. il y aura des indicateurs de suivi pour que vraiment nous puissions mettre à disposition de euh, l'oxygène. Merci de nous avoir suivis.